le 12 juin 2007 fofé ci Espagne la judo, donc ci ville de Las Palmas La ville ci Las Palmas ci ville natalam sax fofu la commencé football donc fofu nonu mu wane fa sur surclassé fa ba club yu bari gis que ne bi am talent ci nonu ci la club bi Deportivo Alavés repéré dat koy récupérer ci Las Palmas andi ko ci sen petite catégorie ba instant bi may wax ak yéen mi ngi surclassé sen U15 yi booy bi nak pour ni ko xamul ailier gauche la attaquant la bo xamantene ne gaaw na technique na également mën na dugal jamono yi may wax ak yeen wa Espagne jonn nañ ko wo ci sen petite catégorie que ça soit U15 ak U16 déjà sax bokku nak sélection ak ki nga xamantene moy Lamine Yamal moy produit au Barça bobu non je pense que les gars yu bari xam nañ ko Ils gérer est gauche bi gérer droite kon vraiment c'est un euh, jour bo espoir yi wa Espagne def ci bari na lol lolou waral nak man may euh, alerte fédération sénégalaise de football ñu téla juk ci boy bi dem ceytu ko ngir une petite catégorie parce que boy bi 2007 rek la juddu ci génération bobu la bokk en tout cas ñun liñ ci waxaat rek Sénégal réew la boo xamante réew football la réew la boo xamante ne jamono yi ñuy wax ak yéen football bi wuyu si nañu motax luñ mëna def rek ngir gëna renforcer suñuy petite catégorie dañ ko wara def kon fédération bi encore une fois dama leen di ñu jéem jog surtout direction technique bi ñu jéem dem détecter ay talent kon mbokk yi li lañ leen andi andiloon di leen wax képp kuy gan ci chaîne bi te abonné go ñu ngi lay ñaan nga abonné te ñu leen di wax également ñi jouer un xbet ñu ñu dem inscrire ak suñ code promo jéego 374 lien bi mi ngi ci commentaire yi tapal leen ko ngeen dem daal di jouer également ngeen am bonus bu tolloog ci 500 000 francs CFA kon mbokk yi j'espère que vidéo bi dina leen neex di leen wax wee leen di like. wéy di commenter jaa ngeen jëf